xasida bi gudd na jàng ko jàng rek moom kuy jàng rek dañ jàng ko pan من ذكر خير الخلق وهو منير سما لك شوق لا تحين تسير محمد مختار الإله صفي ومن عنده قد جاء وهو بشير محمد محمود المقام نبأ وآدم طين والبشير نذير كلام قديم ليس حرفا وإنه لوحي وبار العالمين مشير لا اسم ولا فعل فرق كلامه عن السمع والتعبير وهو زبور بل أمر مضى مستقبلا كان لم يكن يضارع وحي الغير وهو خبير تلقاه خير العرب وهو مبين بنى قبة الإسلام وهي قصور فكسر أصناما بفتح وضمنا إلى حزبه جزما وتم سرور فقسم برفع خصه بنيابة وآخر مخفوض وذاك جزور تعرف فيه الحق وهو منكر وهو مبتدا الكونين وهو أخير تعرف فيه الحق وهو منكر وهو مبتدا وهو مبتدأ الكونين وهو أخير وأسماؤه أعلام أشخاص إلدتي ومهما تراني فالرسول ضمير فإني به الموصول وهو إشارتي به وإليه فالمشير منير هو الفاعل المرفوع بالضم نائبا عن الحضرة العلياء وهو جدير وقد تم فعل المصطفى وهو ناسخ نبي لكل الأنبياء سفير هو الحسن الوجه الجميل صفاته لقد خجلت إذ جاء طه بدور وهمته تزري الدهور وكف تغيض متى حكت نداها بحور وقد شغل الهادي جمال إلهي فلازمه طول الزمان حضور فإحسانه والحسن فيه تنازعا وسبحان من ما شاء عليه قدير ترى كل مفعول بفعل محمد وحالي وتمييزي إليه يشير أضيف إليه كل نعت مؤكدا ذمامي وعطفي والأمين مجير أخاطبه بالمدح وهو بطيبة وشد اشتياقي والدموع عغزير أخاطبه بالمدح ليلي مسرة إليه مسيري والفؤاد قرير أخاطبه بالمدح ليلي بكولاخ وقد نام جاراتي وسد الثغور أخاطبه شوقا ووجدا ولوعة ألوذ إليه والسماء أتمور أجاور بالخلد جارا مقربا يؤمنني واليوم ثم عسير أحاوره بالشعر والقلم الذي يكون حجابي والسعي رتفور إلى كل مخلوق أنلت مواهبا وهذا عبيد مذنب وحقير ولكنه جار محب وخادم بفضلك هاه بالعطاء جدير وليس يبالي من سواك أمارد أم البرمكي ذو غنى وفقير فالسيان عندي ذاني لم أرجو غيره منال حبيبي يستمر يدير فجود رسول الله أحمد سيدي إذا ضن أجواد الأنام كثير فمن جوده الكونان والعالم الذي تقاصر حس عنه وهو كبير فأمر تعالى عن خطور وخاطر وسبحان من عبد لديه بشير أرى كل شيء ما خلا الله باطلا وما النصر إلا منه وهو نصير وإنا حبيب الله طه نجي صفي إله الخلق وهو وزير عليه اختيارا أنزل الذكر قائدا بشيرا نذيرا صابر وشكور فجمعي وتصريفي لحب محمد وفيه بيوعي هل تراه يبور إذا عدد الأقوام يوما وفخروا فخارا فإني بالله أمين فخور وحبي صحيح ثابت متواتر قفوت أبي قاساه وهو كبير وبحر دسيط كامل المد وافر وكوني إياه عليه يسير بفضله إله الناس جل جلاله أنال مراما منه شاب صغير تصور حلا الأمين ملازمي وقد تم تصديقي وذاك شهير فهل بعقيق لي مراد ومسرح أصلي على خير الورى وأزور سراج منير بين الله أمره بمولده إذ هد منه قصور وقد خمد النيران غارت عيونهم بطلعة من منه يسيل نمير وقد هتفت تلك الهواتف أفضحت بهائم أن قد جاء وهو نذير لقد جاءنا منا رسولا لكلنا رؤوفا رحيما بالخميس يسير تراءت قصور الروم عند بروزهم ذا طارت قلوب أو تكاد تطير ودلت قضايا شخصيات بأنه لا أكمل مخلوق أفيه نكير فلا شكل للماح الضلال فإنه له جوهر فرد خلاه نظير وقد كان مخصوصا وجاء معمما جدا وندا للمسنت نيسير أفاض الندى للكل أطلق سيبه ضعيف أناس ناله وخطير بغار حراء جاءه الوحي إذ غدا رياض جنان عنده وسعير فذا ليمين جاء أحمد قابلا أوامره والبحر ليس يغور وخزينا لأصحاب الشمال يصيب جهول عصى الهادي ومنه فجور إذا جاد بال معروف فالكل غانم wa yaa wayxa ahla shirki xiina yugiiru fasal an xunaynin bacda badrin wasalhumu an ahli kitaabin xiina xaana nadiiru wa xaybara bal waadi alqura wa quraydatin wa makkata id xaylu rasuli tuthiiru xujun tabadda في خيل محمد لواء أمين الله فوق يطير فقد وطئ الماحي رقاب شناتي ووافى إلى البطحاء وهو وقور رجال قريش تحت ظل سيوفه فأغضى ولا تذريب قال صبور وقد فر صفوان وبات مغربا وقد لان صخر إذ تلين صخور وكسر عزى لا تحين منات وقد سمع التكبير تم حبور ونائلة تعوي أساف مدمر كذا هبل المخزى دعاها ثبور قل الحق جاء وهو دين محمد وملك أبى أن يقتفيه حقير قد تز بيت الله إطاف آمنا به حاشر والقلب ثم قرير وأبطل أحكام الجهالة ناصبا شريعته الغراء وفك أسير بحقن دمائنا بالصيانة دائما لعرض ومال ما استمر دهور وأكمله والحمد لله الله وحده صلاة على هادي الخلائق نور عليه صلاة الله ثم سلامه جفيري حبيب الله وهو خفير عليه صلاة الله ثم سلام صلاة على الهادي إليه شكور عليه مع الآل الكرام وصحبه حبيبي منصور وذاك يبور bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin min zikri xayril xalqi wa huwa muniiru sama laka shawqun laa taxiina tasiiru amin zikri xayril xalqi ndax tukkee ci fàttaliku aji gën ci mindeef mu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tasiiru waxtu wooy dox ndax fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne mooy aji leeral ji shariatu ci la sa cofeel yëkkatikoo ci waxtu woo xam ne du waxtu dox muhammadun muhammad sallallahu alayhi mooy kuñ tànn ak yàlla safiyuhu mooy tànneefam ba tey wa min indihi tukkee fi moom xat jaa ala dikkee wa huwa moom bashirun di aji bégle <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki yàlla tànn wax na ne ana muxtaarun min muxtaarin min muxtaar mooy ki yàlla tànn ci mbooleem mbindeefam yi tànn ko ci mbooleem tànneefam yi ndax yonent yi baax baax dañoo gënante tilka rusulu faddalna baadahum ala baad ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla tànn yonent bi la tànnaat ci seen biir wax na ko ne ana sayyidu wala di aadama wala fax maay sangi doom aadama yëpp te lool puukaréewu ma ko ñu xamee ne doomi adama ñoo gën a tedd ci li yàlla bind te muy sangi doomi aadama yi kon mooy sangi lépp am na ñuy werante ndax malaakaay gën doomi aadama wala doomi aadama gën malaaka malaaka ci seen amatu yi mboolooy malaaka buñ leen mboolee ñooy gën mboolee doomi adama waaye terewut am na benn benn doomi aadama yu gën malaaka yàlla moo melal doomi aadama yi ne ulaayika hum xayrul bariyati ñooñu ñoo gën ci mbindee fi yàlla yi liy tegtale ne yonentu duhut ne nit ñi rek la gën xadis ji wax ne ana seyidu al qawmi yowmal qiyaamati maay sangi gaa ñëpp yowmal qiyaama gaa ñe moom yowmal qiyaama gaa ñëpp a ngi fa malaaka yaa ngi fa nit yaa ngi mooy tànnee fi yàlla ki nga xam ne moo ñu dikkalee téere bu jugee ci yàlla nekk di aji bégle bégal la nag ñi topp lay bégal ne seen mujj aljanna la muhammadun muhammad mahmudul maqaami mooy kuñ sant ji maqaamaam maqaamul mahmud woowu nga xam ne wax na ne ku dégg ku dégg noddu ñaanal ko ko ramam war la ñeexal la yowmal qiyaamati yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku dégg noddu nga wax ne allahuma rabba hadihi daawa tamma wassalaati alqaa'ima aati muhammadin alwasila walfadila wa baas allahuma maqaaman mahmuda alladi waadta boo waxee loolu gannaaw noddu ne ñaan yàlla maqaama mahmud boobu nga xam ne moom la ko yàlla dig pour yàlla jox ko ko moom ràmmam ñeyàl la yowmal qiyaamati ku dégg loolu da nga xam ne ñaan ku nekk nga soxla ndax yonentu li ko yàlla dig moom am na ko su ñaan ci moom dunguru rek la ndax ku lay wax ne ñaanal ma baat bii man ma ràmm la yowmal qiyaamati maqaama mahmud boobu moom lay junj fii daf cee teg ne maqaama la boo xam ne <clears throat> kenn rek ko xeeyoo yowmal qiyaamati te defe na ne moom la amut sikk ne maqaama bu bu kenn xeeyoo xee ko yowmal qiyaamati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom waaye mu defe na ne moom la loolu dana danañu jàngal ñun pour ñu am yaakaar ci jaam yu yàlla kaweel ñu nar a ñëw yowmal qiyaamati waaye tere taxut ñu sikk ne maqaama bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko kuñ solo la maanaam dinañ ko muy ab yonantu wa aadamu te aadama tey nun ban la yonantu bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax kuntu nabiyyan wa aadamu mujandalun bayna almaai wa tin nekkoon naa ab yonantu te fekk aadama mu ci diggante ndox ak ban moo tax mu ne mu nabbaun wa aadamu tinun wal bashiru aji bégle ji mu waxoon ne yonent sallallahu alayhi wa yàlla def ko ni muy bashir waaye bashir an nazir la moo tax mu ne wal bashiru aji bégle ji muy kim tuddoon ne waxoo bashiru nazirun aji tëkku la it ragal loola ñi nga xam ne nii dañuy mooy ay ndigalam nim ñëwee pour bégale noonu la ñëwee pour tëkkoom waaye ni bégaleem doxee tegtale yërmandeem noonu la tëkkoom tegtale yërmandeem ndax tëkku yi defu ko lu may ragalloo jaam yi mbugal gi nga xam ne nii moo gën a tat muy mbugal ak ëllëg kon tëkkoom sax ci yërmandeem gi la bokk kalaamun <clears throat> wax la qadimun bay aji jiitu maanaam téere bi mu ñëwee wax yàlla ji nga xam ne mooy melow jëmmam xam nga ne wax jooju duut ay xaraf alquran ji mooy takk ndeeri alquran jële ci yàlla la jugee alquran dëgg dëgg waxi yàlla la waxi yàlla dëgg dëgg duut ay xaraf moo tax mu ne kalaamun qadimun wax yàlla dafa jiitu ni ni yàlla jiitoo mën naa feeñal wax ji mën naa feeñ ci jamono fekk terewul ne wax ji moom jiitu na jamono ndax wax yàlla dafa jiitu ni yàlla jiitu jullit yi nag toog nañ ab diit di werante alquran lañ bind la wala luñ bindut ne nga mbugal nañ ci yu bëri imaam ahmad hanbal ak teddaangaam yëpp tëj nañ ko ci mbugal nañ ko ci lu ne waaye la waxoon rek <coughs> ne alquran duur luñ bind mooy dëgg ndax melo yàlla la melo yàlla dafa jiitu ne yàlla jiito moo tax bàyyi ne laysa xarfan déet muy xaraf wa innahu moom la waxyun waxyu la wa baaril aalamina aji bind ji mindeef yi mushiirun aji junj la wala smun déet muy lisim wala feclun déet muy fecel faraqa te sew kalaamuhu waxam an issamci walis dégg wa taabiri ak wax wa huwa moom zabuurun ba tey zabuur la mooy luñ luñ bind la balaa bal bàyyil amrun mbir la madaa wey na mustaqbalan di aji jiitu dafa gis nga xasida bi bàyyi def ci jëfandikoo ay istilaaxaati naxw ak istilaaxaati balaaxa istilahaat al xadis waaye fekk dafay def kinaaye kinaaye mooy baat boo xam ne dafa am ñaari maanaa bu jegeeg bu sori te fekk waxuñ maanaa mu jege mu sori la ñuy wax amrun mbir la du kon amru bi nga xam ne feelu amra la ci naxwu yasalunaka an ruuxi quli ruuxu min amri rabbi mada wéy na mustaqbalan di aji jiitu kon dafa labal jamono lépp ka an lam yakun ndek ndere nekkut yudaariu di niroog gis nga mu ngi jëfandikoo feelu mudaari waxyal xayri wax yoog leneen ku dut yàlla wala wax yu keneen ab yonentu sax bu dul yonent yàlla Muhammad sallallahu wa huwa moom xabiirun aji xam la bi biiri mbir yi comme ni mu xamee biteem daamat la daynaa faaqat kulla mujizatin min annabiyina is jaat walam tadumi alquran dafa sax li imam Busayri wax moo tax mu kawe mbooleem mujiza bu yonentu masa a ñëwee ndax ñoom seen i mujiza seen i kaawteef dafa ñëw bañ demee la kaawteef yi dem yonent yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wa ba mu demee it terewut kawtee fa muy alquran bët bu set muy gën a bees <clears throat> talaqaahu jël na ko dajee naag moom xayrul xalq xayrul urbi <clears throat> jën gën ci arab wa huwa moom mu bayyinun aji leeral la yontu sallallahu alayhi wa ci moom la ko yàlla wàccee pour mu leera ko wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim yàlla moo wàccee ci yow téere bi pour nga leeralal nit ñi li yàlla wàccee ci ñoom ndax alquran lu bari dana ko wax fekk daf ko mbëmbëstan rek julli leen rek la wax amul fenn foo mën a xàmmee ci alquran ne julli tusubaar ñeenti ràkk la wala suba ñaari ràkk la wala timis ñetti ràkk la walla gee ñeenti ràkk la wala fajar ñaari ràkk la loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko jàngale waaye alquran leeralu moo tax diina ji ñaari wax yi ñoo ko amee mooy alquran ak hadis rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonentu ba mi génn àddina nee na taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi abada kitaab allahi wa sunnati bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne bu ngeen ko jàppee du ngeen réer ba mukku mooy téereb yàlla bi ak sama sunna sunna <clears throat> boobu moo leeral lu bëri ci téere bi banaa tabax na qubbatul islaami qubbaayil islaam wahiya moom qusuurun di ay taax maanaam moo tabax lislaam bi bu nekkee ni ni taax yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy nga xam ne nii moo ko téeñal moo ko taxawal fa kassara toj na daane asnaama ma ki xërëm kasra xam nga kasra nga xam ne mu nga xam ci naxwu moom lay jël waaye jëlul maanaay naxwu bi maanaa luxa bi la jël kasara daa damm na asnaama di xërëm bi fatxin ci fatxu bi ma xamee ne moom la ubbee makka fatxu makkata ndax bésa fatxu makka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon daana xërëm yi nga xam ne ñu ngi ci biir kaaba gi ja xaq wa zaaqal baatil inna al baatila kaana zahuqa xërëm bu mu ci xetam wi rek muy daanu wa dammana te tàppeñu ilaa xisbihi jëm ci kuréem jëm ci mbooloom jëzman ci dogu wa tëmma tam sururun kontante <coughs> boole ñu ci kuréem mi suñ kontante it ci loolu fa qismun xaaj bi rafin ci yëkkati xassahu jagleel na ko bi niyaabatin ci kuutal am na kaaj boo xam ne def leen yëkkati ndax ni naibe faayil di uutoo faayil ñi rafaa ko ni ñu rafaayee faayil noonu la nga xam ne nu waabu xadrati warasatul muhammadiyuna ni nga xamee ne buñ doon ne yonentu it sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ leen di yëkkati ci kaw ne naibe faayil dañ koy rafaa waaye ki donnu it eh, ki nga xam ne moo nekkoon di def jëf ji ku ko donnu rek njëkkati la comme ni ñu yëkkatee ko wa aaxaru ab xaaj maxfuudun buñ suufeel la am na xaaj boo xam ne dañ leen a suufeel wa dalika loolu jazurun mooy ak rendi rek taarrafa xammeeku na fii ci moom alxaqu dëgg yàlla ci ñoom la loo boppam wa huwa ta mbir moom moom munakkarun luñ nëkkiraat la yàlla nekk nëkkira lu lënt waaye ci ñoom la yàlla nekkee marifa ba jaam yi mën koo xam wa huwa moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mubtadal kawnayni mooy tàmbale ñaari nekk yi muy àddina ak alaxira mooy tàmbale àddina ak alaxira wa huwa te moom axirun moo mujj moo mujj feeñ waaye nag mooy seen njëlbeen ñoom ñëpp ndax yàlla amal na ko jox ko ak nubuwatu njëkk ñoom ñi am <coughs> wa asmaa'uhu ay turam alaamu ashxaasi ildati ñooy alami jëmmi samay doom maanaam samay doom tur yonentu sallallahu alayhi wa sallam laa leen jox wa ma maa taraani waxtu woo ma gisee fa rasulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam damiru mooy li nëbbatu boo ma gisee man ngay gis waaye biir ba mooy yonent bi waaye boo ma gisee it man ngay gis waaye man li may xalam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo ma gisee sama jëmm ngay gis waaye biirab loolu yonent bi la sallallahu alayhi wa wala walaw sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa shaxsi mahbubin bihi atamattau buñ ma xooloon dëgg-dëgg duñ fotoon duñ gis lu may jëmmi nga xam ne moom laa bëgg mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofa kat nekk na jëmm ja fii nag boo gisee jëmm ji biir ba yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam wax ne asmaahu alam ashxaasi indati samay doom yonentu laa leen tuddee waxoon na ko feneen qaridi madixul haachimiyi wa man alit fa naadaahu bil mahmudi xayru animi xayri animi su ma woy lépp yonentu sallallahu alayhi wa sallam laay woy bu ma woyee boo gisee beneen woy kooku yonentu tax sallallahu alayhi wa sallam ma woy ko boo gisee beneen turit yonentu sallallahu alayhi wa sallam tax ma tuddee ko wa inni naka man mawsulun ko ji jok kuñ jokkulaa bihi ci moom na nga xamee ne aid dañ koy jokk ci mawsul man it kuñ jokkulaa ci yonent bi sallallahu alayhi <coughs> dama ko soxla waxoon ne wa inni lissilaati laka allazi ni lazi di soxlaa sila noonu laa soxlaa ma nit jokk yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga arab du wax lazi rek noppi il faut mu teg ci leneen yaa alladi faala kada huwa alladi baasa wa hakada إني موصول وأحمد عائد إلي قبيل الكون والكون ما شتى أنا من موصول لا أحمد nekk عائد yi gi delliwaat ci man loolu am naa ko njëkk kawnu bi ak ñi fasale nekk gi fa inni bihi mawsuulu wa huwa ishaarati wa huwa moom ishaarati mooy suma junju bu may junju yonentu rek sallallahu alayhi wa junju bihi ci moom wa ilayhi jëm ci moom fal mushiru aji junju ji muniirun aji bidal aji leeral huwa moom yonentu sallallahu alayhi wa mooy aji jëf ji mooy kuñ rafaa mooy maanaam mooy kuñ yëkkati dayoom bi dammi ci tappe naiban di aji huutu anil hadrati wolis peewi kon naibi faayil la foofu al alyaa bay aji kawe wa huwa moom jadirun aji heeyo la loolu te naibi faayil le faayil di def lay def wa qad tamma mat na fi'lul Mustafa jëfi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfam dafa mat te mooy sharia bi nga xam ne ni moom la indi wa huwa moom naasixun aji folli la beneen sharia bu dul bi nabiyun yonentu la li kullil anbiyaa'i ñeel mboolem yonentu yi safirun mooy ki nga xam ne moom la yàlla ebal ci ñoom huwal moom alxasanul wajhu mooy aji rafet ji xarkanam aljamilu sifaatuhu mooy aji taaru ji melo laqad xajilat rusna isja aba dikkee taaha taaha bu duurun ay weer weer yi sax bañ gisee taar yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, rus nañ ndax euh, gisat kenn gisatu seeni taar wa himmatuhu hitteem tuzri dana xeeb adduhóora jamono da waa ji waxoon lahu himamun la muntaha li kibaarihi wa himmatihu lulya ajallu min addahri yonent sallallahu alayhi wa sallama ki téem moo gën a màgg jamono dana xeeb jamono ndax seetal itte ja nga xam ne moom la am ba ko baayam Abu Taalib bay taxam jaaxle ndax waa màkk yi tawat nañ ko ci moom ne ko yaa koy défendre na ko aaye mu ngi doxloo suñ xel yi di xoyofal suñ di dofloo di eh, saaga suñ yàlla yi dégg nga bu taalib ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jëm ko wax mooy teg tegtale itte jure yi buñ tegoon weer wi ci suma ndeyjoor bi mu li ma lakk jant bi suma ndeyjoor mu li lakk weer wi ci sama càmmooy di mu di ma lakk ngir ma bàyyi lii nga xam ne moom laay ootee duma ko bàyyi mukk lu may yàlla feeñal na ko wala ma deewalis ko ana itte ju am noonu moo tax mu ne itteem moo gën a rëy dana xeeb jamono wa këffuhu tenqam taxiidu tafiidu wala taxiidu dana ñiis buxuurun ak i ay géej mata xaakat waxtu wu niroola niroohee na daaha ay mayam géej bu doon jéem a toppandoor yonentu ci mën naa maye man ti mën naa maye ni yonentu maye dafay toog ba ci kanam ñu ko yow ana sa ndox jeex na yonentu nag moom fekk moom ay ndoxam moom du jeex ba mukk noonu la tabeg yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama mel yotti ataa man laa yaxaafu alfaqra la ko la la la la xadis ji imaam Buxaari solo nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a moo gën a tabe way tabe yi ci waaye ci weeru koor la daan tabe tabeem dafa mel ni niir bu ànd ak taw xam nga taw moom buy buy buy buy ñëw <clears throat> du seeti kenn niir bu ànd ak taw waqad shagala soxlaal na alhaadi haadi kay yonentu bi sallallahu alayhi wa boromam yonentu taaru boromam ki yàlla moo ko soxlaal falaazamahu te taqoog moom toola zamaani diirab jamono yëpp xuduurun ak teew teewlu ak seedu taar yàlla yi tabaraka loolu daf ko soxlaal jamonoom lépp looloo tax moom jamonoom lépp yonentu salaay sallama masta sàgganee teew ak peeb yàlla bi tabaraka wa taala ndax taari peeb yàlla yooyu muy janook taari yooyu nag moo ko mayoon mu mën a anu ci xiif lu keneen manut ba muy jokkale di oor di jokkale saxaaba yi ba ñoo gën a baax luñ gis yonentu salaay sallama def bëgg nañ koo def ñii jéem a jokkale mu aaya leen ñi ne ko yow da ngay jokkale mu ne inni lestu ka hay atikum inna lii rabban yutcimu nii wa yasqini melu ma ni yéen dama am borom am naa borom boo xam ne daf may leexal di ma nandal saalixi aarifin yi ne mooy soxlawoo gim soxlawee taara boromam tabaraka wa taala dana ko doy walis euh, di yëg xiif te loolu ku nekk rek mën nga koo gis ci sa bopp léegi-léegi rek mën ngaa am xibaar bu la sawarloo ba nga fàtte ne tey añuloo wala tey reeruloo <coughs> bu fekkee sa sawar man naa àgg foofu nag sawar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ta jëm yàlla ji tabaraka wa taala paase na foofu wa ixsaanuhu rafetalam wal xusnu ak taar fi tanazaa xëccoo nañ fii ci moom yonent bi sallallahu alayhi boo doon seet ndax moom taaram moom ak jëfam yu baax lan moo ci ëpp ñu ne ñoom ñaar daal dañuy xëccoo ku nekk di wax moromam ne maa la raw wa subhaana man tudd naa sell ka nga xam ne maashaa la hoon bu taxutoon ak bayti bi qadirun aji attan la maashaa la ko soob qadirun aji attan la alay ci moom maa ngi tudd sell ak borom bi nga xam ne nii lu ko moo attan na lu bëgg rek attan na ko maanaam tudd sell ak borom bi nga xam ne moo indi taar bu mel ni jëmmi yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tara da nga gis kulla mafuuli mbooleem luñ jëf sama bi fi'li muhammadin tukkee ci jëf ak yeneen sallallahu alayhi wa sallam lu ma jëf rek lu tàbbi ci sama jëf daal ki jëf mafuul moomu mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa xaali sama xaal wa tamyiz yi ak sama jàqee xàmmee yusiiru dana junj ilayhi jëm ci moom te sama xaalit moom lay junj udiifu danaa laaf ilayhi jëm ci moom kulla naatin mbooleem naat melo mu ak kidan may aji feddali zimaami sama kóllëre wa atfi ak sama ataf sama cofeel wal amiinu amiin ko yontu salaay sallama mu mujiirun aji làq la ciy ci gannaawam uxaatibuhu danaa danaa wax ak moom bil madxi ci tagg wa huwa te mbir moom moom bi tayba mu ngi ca tayba madina munawara maa ngi koy tagg di wax moom ci samay tagg fekk mu nga ca madinaam ga wa shaddata tat ishtiyaaq yi sama cofeel wa dumuucu te ronqañ yi xasiirun aji bëri la sama cofeel di tat samay ronqañ yi di tuuru bari lool ngir tatak cofeel gi dam waxoon ida nadaru naxwi fu këf kifu admai wa in gafalu arsaltu damciya mutlaqa wa qaydun wa itlaaqun li damci kilahuma wa dalika xaalu lxubbi xiina taxaraqa wa naaru ishtiyaaqi waaqidun wa huwa madmaci yuxaawilu itfa aljamri id kaana muxriqa mu dafa mel ni ah, safara cofeel gi nga xam ne mu ngi ci xol bi ronqañ yi dafay bëri ni am ni safara soosu am ndax ronqañ yi dafa bëgg a nekk ndox mi nga xam ne nii mooy fay euh, euh, coo euh, yi safara cofeel googu uxaatibuhu bilmetxi uxaatibu dana ma wax ak moom bilmetxi ci tagg leyli guddi sama masarratan ngir ak sigré ilayhi jëm jëm na ci moom masiiri dox sama wal fu aadu te mbir moom xol bi xariirun aji sedd la maanaam kontaan dégg nga ci xolam ci mbëggeelam la xol bi tàngee ci mbëggeel bi itim la xol bi di seddee uxaatibuhu bil metxi laka lay bukki waxoon daal bukki dañ ko wax ne lu la feebar mu ne sump si lu lay faj mu ne sump si uxaatibuhu dana ma wax moom bil ci tagg lay lii guddi sama bi kawlaxin te maa ngi kawlax man fële maa ngi wax ak moom moom mu ngi tayba fii maa ngi wax ak moom man maa ngi kawlax waqad naama te mbir nelaw na jaaraat yi way dëkkandoor sama jëkkandoor sama wa suddata fatteef su xuurun yoon yëpp nit ñëpp ngi nelaw uxaatibuhu may wax ak moom shawqan ngir gëg cofeel wa wajdan ak mbëggeel walaw atan ak lakkuk cofeel aluusu dana ma wéeru ilayhi jëm ci moom wa samaa'u te mbir moom mbir mi te muuru mu ngi wala te fuuru mu ngi uh, fuur uxaatibuhu shawqan wa wajdan ujaawiruhu dana ma moom bil xuldi ci safara ci ci ci ajjanna juñ beel danaa moom ci ajjanna ba ñuy beel jaaran di dëkkandoor muqarraban di kuñ jegeel yu aminu nii dana hóollooma wal yowmu te bés bi tamma foofale asirun aji jafe la bés xamee ne bési alaxira bés bu jafe la ndax bés boo xam ne yonent yi sax dañuy dem ci ñoom ñi gën ci yonent yi muy ibrahima muusa isa nuuxun ñëpp gannaaw aadama ak ñoom ñëpp jaar nañ ci ñoom ñoom ñëpp ku nekk bopp sama bopp sama rek lay wax bés boobu bañ ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ana laha yakunu dana nekk xijaabi sama xijaab maanaam wali safara wa sairu te mbir moom safara te fuuru mu ngay fuur bés boobu nga xam ne safara ngi lakke di fuur maa ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak sama xalima gi nga xam ne moom mooy sama xijaab ci safara suus ila kulli maxluqin analta mawaahiban analta maye nga yow yonente sallallahu alayhi wa sallama mawaahiban ay may ila kulli maxluqin jëm ci képp ku yàlla bind mbindee fi yàlla yépp joxe nga ay may yu jëm ci moom wa haada kile ubaydun as njaam la muznibun bay aji baakaat wa xaqiirun kay aji xeebu baay mooy melal boppam ne yonent bi sallallahu alayhi mindee fi yàlla yépp may nga leen waaw jaam bu xeebu bi bu bëri bàkkaar bi bu suufe bi waxut dara ne moom la jaam bi laaj may nga ñëpp sa jàmbu xeeboo ngi nii ku déggul wax sax nga xam ne mooy may ma rek waaye balaa itteewoo feeñal may gi itteewoo moom feeñal màggaayu yonentu sallallahu alayhi wa sallam itteewoo màggaayu moo tax mu itteewoo tudd moom ak xeebeelam moom ngir wan la yow màggaayi yonent bi sallallahu moo tax baay buy wax luy tegtale màggaayam du puukaréew ndax bu doon puukaréew du mas a wax ne ubaydun muznibun wa xaqiru buy wax luy tegtale màggaayam dafay wane ne mucc waaya ngi ni ñëw leen mucc rek mucc waaya ngi nii ñëw leen mucc walakinahu buy jaam bu xeebu buy bàkkaat di as njaam jaarun dëkkandoor la sa dëkkandoor aji bëgg la xaadimun liggéeykat la ma ne ku du yonentu sax ku ko liggéeyal mu fay la ku du yonentu sax sallallahu ku ko dëkkandoor ak moom mu jëriñ la ku ko bëgg mu jëriñ la ku dëkk ak yonentu bëgg yonentu liggéeyal yonentu moo tax mu ne ko jadiirun aji xeeyo la bi fadlika ci sa ngëneel ci sa ngëneel bi fadlika ci sababi sa ngëneel haahu mu ngi nii jadirun aji xeeyoo la bil ataa'i ci may ba léegi tàggut boppam yonent bi sallallahu alayhi wa ku la bëgg ku dëkk ak yow ku la liggéeyal xeeyoo sa may waaye ci sa kaw ngëneel la ko xeeyooye xeeyoowu ko ngir ne moo def lum ko xeeyoo yow yaa baax walay sa yubaali déet muy faale man kudut man keneen si waaka kudut yow xinan <coughs> wala borom ak koomal aw faqirun wala faqirun aji ñàkk toppatoowuma kenn ci ñooñu fi siwaaka manaali maa qabiltu nawaala bu fekkee keneen moo may daal man jëlum man soxlu ak may ci sa gannaaw lak laa xaj soxla may keneen ku dul yow keneen kuy maye na jël wa in yakun siwaaka manaali ma qabiltu nawaala fekkee keneen daal moo may may na na téye fa maa liya xayrul Mustafa ma arabu wa fi jaaizaati lxayri maa liya margabu bàyyi nee na awma soxla ci ku dul yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñeneen ñu dul moom tim xeme mu ma ko wa fi jaaizaati lxayri maa liya margabu <coughs> fa juudu rasulillahi ahmada sayidi ida danna ajwaadil anaami kasiru tabeeg fa juudu rasulillahi tabeeg yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahmada kay ahmed sayidi kay sang sama ida danda ndam nay na ajwaadul anaami way tabe ji mi ndefi kasirun lu bëri la yonent salaay sallama ñi gën a tabe ci mbindeef yi buñ demee ba nay yonent salaay sallama moom mayam may gu bëri lay nekk nay nay nay nay du gaar yonent salaay sallama fay gaar bakkan yi waaye du gaar yonent bi wax diratil anfusu shox fa min juudi yi tukkee na ci mayam këw naa ni àddina ak àllaaxira wala aalamu ak aalam bi nga xam ne alladi ba nga xam ne taqaasara gàttañ na xissun yëg anhu walis ko wa huwa moom kabirun lu màgg la àddina ak àllaaxira ba ci aalam bi nga xam ne yëg sax du ko yëg kon ba ci aalamul arwaaxi lépp ci may yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama la jugee ida baxila almamduux yowman fa innani xabibi wa mamduuxi alkarimu wa hubu ku ñuy tagg ngay nayi man de sama soppe bi nga xam ne moom lay tagg moom waxtu nekk mu ngi tabe di maye fa amrun taala an xuturin wa xaatirin fa amrun mbir la taala kawe na an xuturin walis rod wa xaatirin ak xaatir buy xalam wa subhaana man tudd naa sell ka nga xam ne abdun jaam la day ci moom bashirun mooy aji bégle ara dana ma gis kulle cheyin lépp lëf maa xalallaaha lu dul yàlla baatilan muy neen labiit moo njëkkoo wax loolu ala kulle cheyin maa xalallaaha baatilun wa kullu naimin la muxaalata zailu kullu unaasin sawfa yadxulu baynahum duwayhatun tasfiru minha al anaamilu ba mu waxee naa laa kulli shay maa xala allaha baatilu lépp gis naa leneen lépp lu dul yàlla rek neen la olof yi ñu ngi koy wax yenentu ne asdaqu baytin qaalatu arab mooy wax ju bu gën a dëgg bu arab wax mu ne wa kullu naimin la muxaalate zailu xéwal gu ne dafay deñ mu ne ko illa naimul jannati bari na ara kulle cheyin maa xala allaha batilun xam nga ala kulle cheyin la waaj wax maa xala allaha batilun moom dafa wax li xam waaye waxul ne gis na li xam bàyyi nag fa wax ne gis na li xam xam nga olof yëpp dañuy wax ne lu dul yàlla neen la <coughs> olof yëpp ko wax waaye ndax olof yëpp mos nañ lu dul yàlla neen la buñ ko mosoon coow li dal na bu yàgg <coughs> ma ne bàyyi waxut ne gis naa lépp dafa ne dégg lu dul yàlla neen la dégg la waaye ndax ku wax dëgg rek janoo nga dëgg yi bàyyi nag moom dafa ne ara kulle shay'in man damaa gis lépp lu dul yàlla muy neen wa man nasru dimbal ndimbal illa minhu ndere tukkee ci moom wa huwa moom nasiru mooy aji dimbale gis nga yaram nu mu gis naa lu yàlla neen la nga ne ah, dimbale kuy maye ku ñuy dimbale ku ñuy maye mu ne kenn du dimbale lu may yàlla jës <coughs> bu na la waaye dellowaat na la ci dëgg de delluwaat na ci sharia wa man nasru de ndimbal illa minhu ndere tukkee ci moom yàlla wa moom nasiru mooy aji dimbale mu dimbal amee kay ku ñuy dimbaleen fi kon boole ne tasaare na wa inna habiballahi naka soppe bi yàlla bi mu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam taaha taaha najihu ke aji deyalem safiyun safiyu ilaahil xalqi mooy kuñ tànn nag yàllaay mbindeef yi mooy yàlla tànn ci mbindeef yëpp oo moom wazirun mooy jaraaf ak péeb yàlla bi ni nga xamee ne buur daal dafay am jaraaf am ministère am boo xam ne bala ngaa dem ci moom dugg foofu pay yàlla bi jaraafi pay yàlla bi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko wax waykat bi waxoon anta baabullahi ay yumri in ataahu min ghayrika laa yadxulu yaay bunta bi yàlla ku dikkal yàlla ci lu duut sa buntu du dugg alayhi ixtiyaaran anzala zikra qaidan anzala wàccee na zikra alquran alayhi ci moom ixtiyaaran ci tànneef qaidan muy aji juble di aji jiitu bashiran di aji bégle naziran di aji tëkku saabirun di aji muñ wa huwa moom shakurun aji sant la doy na ci santam ne yàlla baal na ko ay bàkkaaram li jiitu ak lu njëkk ak lu mujj waaye terewul muy jam yàlla ba ay tànkam di nuyu ba sayyidatuna Aïcha di ko wax ne ko lu tax ngay def lii te yow yàlla baal na la say bàkkaar li jiitu ak li mujj mu ne afala akunu abdan shakuran ndax du ma nekk jaam buy buy buy sant boromam kon jaam buy sant boromam mooy jaam boo xam ne bu ko wéroon ne ko lu mën a xew rek aljaana la jëm du tere moom mu topp yàlla ndax yàlla dafa xeeyoo topp moom tim mu xeeyoo war a topp yàlla ndax yàlla xeeyoo topp gi nga koy topp ngir dafa am aljaana yàlla xeeyoo topp gi nga koy topp ngir ne dafa am safara yàlla dafa xeeyoo topp gi koy topp nag moom yàlla la moom yàlla la yow nag buur nga buur dafa war a topp buur dañ ko war a topp jaam dafa war a toppee saa ndax dana la may wala du la may fa jame sama boole wa tasrif yi ak sama soppandiku li xubbi muhammadin ngir bëgg yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa fii aji nekk la ci moom buy yuuxi sama jaay hel taraahu ndax da gis ko yebuuru muy aji lambu bu may jaay ci moom laay jaaye mooy sama commerce mooy sama boole mooy sama soppandiku ndax jaay boo xam ne yenente ko moom ndax jaay boobu daa lamb du lamb ida addada ndem lim al aqwaamu gaaña yow man bés te buy wax gaaña waxut gaañëpp de xam nga waa grand place bu nekk boo déggee dañ nañ gaañ yi ñëw nañ seen gaañ yi lañ ci jublu góor yàlla yi buñ ne gaañi yi góor yàlla yi lañ ci jublu arab bu ne gaañe sax góor rek lañ ci jublu moo tax alquran wax ne wala yastar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna xayran minhum loolu foofu xawmu ci arab góor la doon firi ndax moo tax waykat bi waxoon ne a qawmun ala xisnun am nisaa'u ndax ñi góor lañ wala jigéen lañ duun ñii nit lañ wala jigéen lañ a qawmun ala xasnun am nisaa mooy ndax ñi góor lañ wala jigéen lañ kon qawmu nit la leen mu dem nag bay bay firi góor la doon firi ci arab mu dem bay firi nit mu dem nag ba mbooloo mu nekk buñ ne buñ ne gaañe seen gaañe la ñu jublu gaañi gaañi dajee di bëlut buñ ne gaañ ñëw nañ pour bëlutkat yi la ñuy wax ñii dajee tas kaamil bi jàng ko ñum ne bañ ne gaañ ñëw nañ kaamilkat bi la ñuy wax gaañi wasifa yi buñ ne gaañi wasifakat yi la ñuy wax bàyyi nag bu ne gaaña set tey góor yàlla yi ñoom la ñuy wax ida addada al gaaña bu ñuy lim yow man bés ku nekk di lim man lii laa xam lii bi mooy sama maqaama bi mooy sama dayo wa faaxaru ñuy puukare fa xaaran ak puukare fa inna nii naka man fa xuurun aji puukare wu laa bil amini ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp nag bu ñuy puukare wu ku nekk naa lii ak lii ak lii laa man ci leen rek laay puukare wu mooy yonente bi ndax doon yonentu rek ko doy wàllu yi ku ci nekk dafa am yonentu boo doon ñii isawiyul maqaam lañ ñii muusawiyul maqaam ñii ibrahimiyul maqaam ñii nuuxiyul maqaam ñii kal maqaam luutiyul maqaam bàyyi nag moom benn doon doy ko lu may doon yonent bi sallallahu alayhi moo tax ku nekk buy puukaréew da ngay puukaréew sa maqaama bi nga xam ne mu ngi jokkoo pay ba nga xam ne yow ca ngay jëlee moom nag pay ba xam ne moom lay jëlee mooy pay bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bu ñëwee rek muur na lépp wa hubbi mbëggeel sama saxiixun aji wér la mel ni ki xadis bu wér saabitun aji sax la jugee ci wentu mutawaatirun buñ dëppoo la ci moom buñ ne xadis mutawaatir mooy xadis boo xam ne dañ ko riwaaya mu jugee ci mbooloo yu bari yoo xam ne dana jomb seen dajee ci fen su ma mbëggeel mu ne noonu la mel dafa mel ni xadisu saxiixun saabitun mutawaatirun xafawtu roy naa abi baay sama maa ngi roy nag sama baay xaasaahu sonnoo na ko wa huwa moom te kabirun wa huwa moom kabirun mag la loolu yëpp nag roy naa ci sama baay nga xam ne dem na ba nekk mag nga gis ni muy sonnee coono yi mbëggeel yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ndax mbëggeel hen la hen ci mag la gën a diis binni boo gis diisaange la am na ñoo xam ne bagage rek lañ ànd ñi ñi ñiy binni am na ñoo xam ne kurpañ bu diis leen dóor ñu binni ñoo xam ne mbëggeel gi ñexenu moo leen di bindloo wa baharun basitun kaamilul maddi waafirun wa kawniya iyaahu alayhi yasiru baharun géej lay firi waaye mu ngi junju tagg yi muy tagg yonentu ci awsaanel buxuur cheer yi baxar yëpp mu ne maa ngi koy taggee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama taggee naa ko ci baxarul basit mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun taggee naa ko yonentu kaamilun tagge naa yonentu ci baxril kaamil mutafailun mutafailun mutafailun tagg naa yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci baxrul madid failatun failun failatun tagg naa yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci baxru waafir mufaalatun mufaalatun fuulun mufaalatun mufaalatun fuulu lii yëpp taggee naa ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waaye waxut baxri yi sax baxrun yonent bi moom géej la sallallahu alayhi wa sallam basiitun géej gu tàllalu la kaamilun géej gu mat la kaamilun maddi guy aji mat ji du si géej la waafirun bu mat la mu indi buxuuri chaar yi fekk moom waxut sax buxuuri chaar yi yonent sallallahu alayhi wa sallam lay jël buxuuri chaar yi nga xam ne tur yiñ amee maanaa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mu tuddeyaat ko ko ne baxrun sallallahu alayhi wa géej la lam waxoon alimma ala baxril muxiiti wa tatruka sawaqiya laa tujdi zamaan liman shaka bàyyil xond xond yi nga xam ne mënta nàndal ku mar demal ci góoj bi nga xam ne mooy océan bi mooy yonent bi sallallahu alayhi moo tax fii mu ne baxrun ngay jàng nag yow ki jàng arun nag mu ne baxrun nga ne baxr baxru shaari lay wax basitun nga ne baxrul basit lay wax fekk yonent lay wax sallallahu alayhi wasallam ne géejëm gi dafa tàllalu fu ne la xàgg basiitun kon yow baxarul basiit nga xam moom waxut baxarul basiit yonent bi sallallahu alayhi wa lay wax ne moom moom géejam ngi dafa tàllalu kaamilul mat di géej gu mat ji ay duusi géejam la waxut baxarul kaamil waxru baxarul madid waafirun waxut baxarul waafir waaye yonent bi sallallahu lu lu mat la wa kaw niya nekk sama iyaahu di moom alayhi yasirun aji yomb la alayhi ci moom ba kaw ni nekk sama iyaahu di moom ceg donn yasirun aji yomb la alayhi ci moom bu ko neexee mu tëbb ma yooyu yëpp ma nekk di baxru di basiir di kaamil li mu na di di waafiru bi fadli ilaahi naasi ci ngëneel ak yàllaay nit ñi ngëneel yàlla kenn du ko lim kenn du ko limité kenn du ko lim kenn du ko limité jël la màgg na jëlaalu ak màggam anaalu dana ma xam maraaman càkkutéef caaba be jaaw na saxiiru ndaw min wu ci moom ci ngëneel ak yàlla mu màgg mi ci laay amee càkkutéef goo xam ne màggat loo na béjjaaw loo na sax ndaw moom it càkkutéefam bi béjjaaw loo na ko xaali ma al Mustafa laa laa laa aqla yudrikuhu salla alayhi ilaahi munzilil kutubi tasawuru xaalaatil amiini mulaazimi di fàttaliku di jëmmal xaalaay yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu laazim yi mooy aji taqoo sama waxtu wu nekk rek maa ngi ci xaal ci xaal yonentu sallallahu alayhi wa sallam waqad tamma tasdiq yi waqad tamma mat na tasdiq yi dëggal sama wa zaaka loolu shahirun lu lu lu siiw la te loolu kat dëggal nañ ma ci te siiw na ba ñëpp xam ne loolooy sama xaal allahuma sal ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxoon na qad chaa fi sudaani walbidaani anni muhibu lmustafa aladnaani wa muhammad ilmichri bind ci moom qasida seedeen ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi bind qasida boobu ne qad chaa fi sudaani walbidaani anni muhibu lmustafa aladnaani siiw na ci ñu weex ñeeg ñu ñuul ñëpp ne maay ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo leen projet bu am yàlla xéwénal ko yàlla yokk ko daayir daayir ku nekk na nga am jàng ko ci xol bu set ñaan yàlla ñëpp ñaan ko yàlla ndax lii lii muy defal ñu lay jël kon nañ ko ñaanal yàlla ñu loolu la ko yàlla bismillah waaw voilà jërëjëf mbokku téléspectateur Kossy TV ñu ngi wax ne ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mahi Aliou Cissé yàlla na fi yàgg te ànd ak wér yàlla yàlla sàmm ko xaar ko watul ñu ko laqal ñu ko fa laq yeggut waaye nag dëgg-dëgg lii moo nekk Medina Baye xam-xam jàngale. Eh, dimbalante soo génnee si biti noonu lay jëlee alalam di ko jox taalibe yi eh, si biti ba sa jumaa ja kooku tey dañ koy ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér waaye di ñaanal yàlla taalibe yi aju si moom yëpp ak képp ko ko sopp ndax xam nañ ne kenn bañu ko li wéykat bi di wax rek kenn bañu la dañ laa xamut waaye ko xam ku nekk rek ko bëgg da nga ko sopp kon seex Mouhamadul Mahi Ibrahima eh, Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé yal na yàlla yokk sa jëf yàlla dimbale saa dimbale la si baatin salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen allah